pour li ñu bëgg daal mooy parce que bu ñu ko xoolee Thiès mel na ni mbir mi mu ngi mu ngi li fi amoon tàkk-tàkk bi fi a naan naa mel na ni mu ngi fay taal bi fi amoon mu ngi bëgg a fay mais taal baa ngi dakaar ba tey donc li am cees mu ngi Dakar képp ku jege si yeneen régions yi dem Dakar cees ngay jaar ku génn Dakar bu nga dem si régions yi Thiès ngay jaar donc foog ñu limité suñu diggante ak Dakar la